Eco TV dal leen jàmm ci seen émission showbiz showbiz nag dafa daal di def déplacement ak dérangement ñëw fii nii fi nga xamante ni mooy géejawaay mais plus précisément fii nii ci notaire daal di seet si xale bi nga xamante ni mu ngi def buzz si YouTube bi waaye tamit mu ngi def buzz si TikTok bi mu ngi wàcc tamit Instagram ba zéro xale boobu nag mooy Ndeye Lo. Euh, touché na ma trop. Mhm. fu ma tëll ñun ndeyloo ndeyloo ndeyloo mais mhm. koñ bi ma dëkk sax dañ ma koy wax mhm. man nag affaire bi jëlewu ma ko woon fenn mhm. maa tegoon ni kii rek la ndax ba may ba may def interview bi sax ñi ma àndaloon sax ñu ma doon téye ndax ma bul def mane ne par force damay def mais jëlewu ma ko woon leen daal xaw ma woon dina yegg si fii tamit mais loolu noo koy dundee instant bii instant bii nii ah nit ñi instant bii ñu ngi naan dayloo est-ce que wér na dayloo ndàngam ndàngam du dara nag de dama ko defoon juste rek pour foo defuma koon pour leen. nag xamalal nit ñi ne loolu ay eh, affaire comédien rek la woon. loolu affaire comédie kasa la woon. Mhm. nekkul woon pour leen sama mag gaañuwul aw ma mag bu gaañu may sama taaw yaay may sama taaw papa. Mhm. aw benn mag bu gaañu. yenn saa yi ma jël 42. avant ndaare wala ndaare. waaw ndaare avant ndaare ndax loolu lañ ma xamee. Mhm. mais loolu noonu laa daan kii nii. waaw léegi maa ngi fàttaliku nag sama benn leçon boo xam te jàpp naa ko muy le propriété dissout le ventre de l'eau le propriété dissout le ventre de l'eau quand l'eau ne dissout pas le cirque ou le cirque se dissout dans l'eau le maître tape sur la table avec sa